رضيت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرم به ربى رضيت عن المولى تعالى الذي ربى suñu yëpp la quoi parce que kii ko moom suñu suñu bos bopp la. Eh. ñu góor gi xam nga di sama waay suñu lépp. Mm-hmm. waaw di wax ne tamit gars yi nañ ko laaw xam nga. non saa paquet bu jeexee rek damay laajal beneen paquet xam nga <laughs> bu jeexee jaara gars yi góob parfum gi nii ah. waaw noonu la demee ah. di woy moof bi ah waaw noonu la demee. sama soppe suma grand frère kenn ci man borom Go Parfum Go Parfum nag mbokk yi ah daw leen ngeen wuti ku gaaw tàngoor wi ca la ñu nekk ba tey dugagunu ci sedd bi. waaye dama ne bii dafa baax ki tàngoor baax ki seddaay as gor nit ku baax day set day silwiise te day xeeñ lu neex na dafa bokk ci jàmm yàlla set dafa bokk ci jàmm yàlla te as gor day xeeñ lu neex ki ma ci doy nag guddi yi may wax ak yow moo nekk nii suma waa yi góo parfum fii ci dëkk bi la ne mi ngi fii ci caaro yu sorow la dara dem fa gaaw mu tëral la ci mbaax Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makaarimal axlaa fàllawu bu sa jox bi mi càmmiñal ma réew mu kunta moo tee parfum yi ci loxoom ñaan si dina neex dina barkeel ndami nam parfum yu baax yaa ngi nii go parfum ngay am nii Serigne Ba Bag Daba Sey go parfum go parfum man moom laay moom laay xeeñoo. da ngay man go parfum rek sama parfum de classe go parfum la mormaane. gros parfum bi laa bëgg nga laal ma ko dégg moom lay def. moom lay def. ayca gros leen xale yi daw leen ci gros parfum. da di daw ci gros parfum. numéro bi mi ngi nekk 77. 555 87 40. nga daal di am parfum bu neex bi 77 555 87 40. daw leen daw leen ci Korda ba seeg Mbaba Go Parfum yaa ngi taw yaa ngi taw sànq. sama sama xol si Balla Gaye numéro 2. ndeysaan laa seet si woon tey. ndeysaan. sëñ Abdou Karim ku ne xam ne ni moo ñaan ci parfum bi. sëñ Mountakha ñaan ci. ma ala kursi ñaan ci. ma tuddee ko parfum nabien yi. kon bu ñu ñëwee ci champion. dañ ko ciy jox wàllam muy ko parfum bi. waaw muy nii de waaw mbégte. champion boobu la muy taalibe Sëriñ Tuubaa. waaw champion tout le temps. lay lay ndeysaan góor parfum wax dëgg yàlla. yii ñu dajee nii nga joxe xéwal bi ci bisu seen naam sallallahu alayhi wasallam na gën a ful yàlla na a la woon waaye sa daal moom ngay delloo ñu ko sant la gërëm la parfum yi daal kon ni ko joxeeni yàlla nga ko yàgg muy dox hmm. <laughs> nay dox daal nay dox daal dégg champion ne dox daal waaw go par moom kontaan kontaan nga xanaa sax loolu dégg naa loolu dégg ko gisee dégg ndax sigil na Sénégal sigil naay supporter waaw loolu moom dëgg la waaw salaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna lu bees tàkk nag dafa ñëw ci réew mi ñu naan ko Go Parfum la mu saf nag ka ko ñam a ko xam man xam naa ci dara ndax laal naa ci te dëkk bi dafa tàng te Go Parfum dafa nekk parfum boo xamante ni consommé local la ki koy defar doomi réew mi la te yaakaar naa ni ku jéggaani rek dafa fekk sa kër tëggul doomu réew mee ko moom investir ko ci biir réew mi di woo sénégalais yépp ñu dem découvrir lan mooy Go Parfum ndax ku ko ñam dootoo ko bàyyi ñun ay géwal lañu dañoo bëgg lu baax bëgg lu bëgg lu neex moo tax teel naa cee jël samay bës ku soxla ci parfum yi nag mun ngaa woote ci 77 555 87 40 xam nga ni réew bu ne am na way boo fa sasoo bokkal ca way mais go parfum borom parfum yu neex yaa ñu tax di xeej neex yàlla sa jàmm yàgg maa ngi lay déggee bu baax ay ca go parfum man de bu ma xeeñee neex yow mi yaa tax béggee parfum moom la ñuy jël bu la neexee booy wértu nga laal ci booy génn tamit nga laal ci boo waree seeti sa euh, macha allah ki nga gën a bëgg nga laal ci xet bu neex da ngay am mm-hmm. waaw kaaba ba si kaaba gi nii yóbbaale suñuy Go Parfum ànd ak xet bu neex en tout cas Go Parfum amul morom. macha lay ñaanal yal na yàlla barke. waaw ñu joxe numéro bi 77. waaw yal na yàlla 555. 87 40. waaw ñoo ko déggandoo. waaw Go Parfum. parce que bii ku ne xam na bëri ci démb dama laa fekk muy toog man na dafa am parfum bu bees bu muy génne ci parfum man la parfum bi couleur bi ñëw nii nii bi may ñëw xamoon seen bi dina so te bëri ci démb laa ko génn mu toog ma ñëw indi parfum bi jox ko ko léegi nag sama xel dem muy mëf ma mujjee génn moom la sol moom mooy seen bi kon barke ma lay seen ñu lay Thank you. góor góor góor yàlla ko daay gi de ah, yàlla ko daay gi ak cantu war na murid bi raw nga sëriñ Muntaxa hmm? dañ koy tënk حق على كل شخص Soxna si tàllal قديما دواما بالذي اختاروا عباد به قد قنيت اليوم عبدا بذكري